Les 17 26 novembre dans le showroom ba nekk Yoff cité Biagi. parcelle croisement 22 à ci cac télécharger application cac sénégal kadi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 conseil national de développement de la nutrition ñoo leen di ñaax ngir ngeen dooleel xale yu am juróom benn weer ba ñaar fukki weer ak ñett ak bi gën ci ñoom Optez pour un climatiseur de classe A++ et adoptez l'économie d'énergie dans votre style de vie Sénélec ak Woyofal yaxanal énergie yaxanal sa poche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 Harlem City. Ruby, l'horlogerie sénégalaise. Lima, boutique. Le Pop Shop. C'est toujours les mêmes personnes qui font la grève ou quoi Vous faites qu'elle réagir. On passe à la vitesse supérieure. Il est temps. Depuis que vous sey attendre, vous changer. yow yay bado la gay amul lo deful pour dugg Agro drip yow complice nga tano lu mu def xam nga ko. lii suñu suuf la. côté gauche qui yëpp maa ngi borom. li ngay lan. Retrouvez votre série La Graine du Pouvoir tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h sur la chaîne YouTube Marodi TV. Khady Thiam maa la fentel kaddu yi ngir fatali la sama mbeugel ci yow fukki at mi ngi xamante at mi ngi and di génn nga don di gën si man nop na la ni far waye bëgg na la ni mag ba tax na jàmm rek la la yéene Khady yaa ngi fàttaliku ba ñuy njëkk a gisante suñuy bët daje boobu xaw ma woon lan la tank yi bañ loxoy yi paralysé Victor Hugo a dit on a tant abusé du regard dans les romans d'amour qu'on a fini par le déconsidérer c'est à peine si on ose dire maintenant que deux êtres se sont aimés en premier regard c'est pourtant comme cela qu'on aime et uniquement comme cela le reste n'est que le reste et vient après

ngay waane waanoon di bind ay lettre so fa dee Omar Omar Omar budi deug rek lay wax Omar fajna na ajoom ci xale bi profito ci bëgg bi ko xale bi bëgg du am mom limu bëgg mbëggeel dina lo nit lu nekk dina la takalé sa sago dina la joylo dina la relo mbëggeel mëna la laa yóbbu sax ci faat bakkan mbëggeel mën de soppi sa je mbëggeel mën na de weddiloo àddina après tout c'est normal quand on est amoureux <laughs> on tombe l'amour est l'art de nous faire chanter l'amour est l'art de nous faire vibrer l'amour est l'art de nous faire pleurer l'amour c'est les sept arts réunis mbëggeel am de lu mën na lu ne entièrement entièrement da ngay takk sa fit songu dëkk bi man lekkuma man naanuma ba tey nelawuma lu doy man waxal ma ko dee maestro Youssou Ndour moo ko way c'est l'amour. Donc toi, tu es en vie. le tal de def ay courses yow Babacar mais c'est pas grave. mais calme-toi là mon cher. mais Babacar là lay calme woo oh? Yo qu'est-ce qui te prend pourquoi tu es en lâche Hein? Yo à chaque fois tu mets ton nga Là moi c'est un problème je t'appelle pendant plusieurs jours tu décroches pas ton téléphone. Léla, il faut que tu te calmes d'accord Lo xew là tu Yo merde nga nan ma lo xam nga lan laa bëgg nga déglu ma du ma sa morom sa comportement bi nga am ni j'aime pas ça du tout c'est quoi ton problème Babacar. Leila mën naa expliquer leen nga comprendre à chaque fois maa ngi dégg sa frère yi ñu wàccee sama xeet quoi mais loolu garaawul mais yow mi nga xam ne yow laa war a takk nga nekk sama soxna Leila soo ma xeebee man nan lay def. mais yow ci tonton Talla Babacar yow amoo gàcce de fii def nga ma fi lu nekk et pourtant je t'ai pardonné su ma la bëggul woon du ma nekk ak yow. Babacar yow amul loma ma deful ci digu dëkk bi ñëpp tek ci seen bët tu as tout fait pour ma balle et là tu te comportes comme un imbécile va falloir que tu changes wala xolal. cette fois-ci mom, c'est ta dernière chance là, lay wax ni. Leila il faut nga comprendre leen instant bi may topp bëggoon naa takk mais instant boobu yow xam nga ni man yoruma woon ñaar dërëm Lolu mo taxon ma jël sama distance entre man ak yow. <laughs> n'importe quoi donc toi tu te permets de faire des choix pour moi. bien sûr. Hein? yow mi nga xamantene wéro wéroo sa xel mi dara newu ci man maa wax nga defal ma choix pour sama bop man xam nga lan la lay yëgal c'est ta dernière chance sama papa suba dañ koy nganale si je te vois ça dire que suñu relation mom on peut dire ça, ça peut aller si je te vois pas xam que c'est fini. gis nga Leila écoute-moi très bien buma fi indil ben ultimatum yaa may dégg gis c'est déjà fait fais ton choix. hey Leila. nga naa léegi nak dama bëgg nga jël ko en charge ndax fim mu nekk nii nabu tal na lenen té bëgguma dara manké na nga ko toppatoo organiser ko defar lépp dama bëgg nak ke dëggal sa bop woné sa bop fi d'accord moom naa def lépp lu ci war suba inshallah allah ni fa mom dina na ci jappalé bu baax a Mare, ñii fi rek waxtaan ñu ngi waxtaan wa. bu ci am xel ñaar yaay booy lépp lu ci war suba insha allah naa ci taxaw bu lolou wesso nak Insa meuna dem gàttandu mama wa inshallah Insa man. waaw. est-ce que xam nga ngay wax fi bu amé seut bi teeru ju papa Ndiouga mé di ñew Cheikh Tidiane kase sama dom lay nek tax mom la ñëk gis ci seut nak yow tamit wala nga faté lolou lolou mu santul caama tax. teutam bi nek ci kër gi sante caam mom mo koy dem. gàttandu sa wax yow. sa princesse layla laa bu mu lay indil guer waxo kon bu fi nekk naan kii sant Thiam ak Kassé askan wi ma yow. man du ma sa morom booy waxanteel te damaa bëgg nga xam loolu bu baax Layla ku mu indee ku indiwul kooku yow sa yoon. nekk kon sama doom ji sant Thiam bu ko lijjanti. sa papa bu ñëwee dina ko lijjanti. dina ko lijjanti sa Kassé sama Kassé bi bu ko lijjanti yow sa yoon newu ci. Eh, bàyyi ma. Marème gi fi ci caw dafa doy. askanu eh, ñeeño benn bopp lan kenn mënu koo xar ñaar jong ak yëpp benn bopp lañ kenn mënuñoo xar ñaar ki day séparé waaye lan lay def nii. wax daal dafay doy. sa jikkoy glace ki nga toujours ma wax la li ma lay wax bàyyi ma de si loolu la ñuy jotee nag. est-ce que t'as allumé moom waxal ak man Khady. Ousseynou. dis-le-moi et tu seras la plus heureuse des femmes. dis rien et je te laisserai partir car oui Khady bëgg naa la mbëggeel ba nga xamante si je sais que j'arrive plus à faire ton bonheur je t'aime assez pour te laisser partir. man ak xale góor yi ren rek jaar mu dem ñoom ñëpp a yem. Ousseynou yoo xam ne man je suis pas romantique les mots ce sont pas mes forces te loolu bu mu tax nga dute sama mbëggeel si yow de ndax jàppal loo ma bëgg benn bëgg naa la ko fukk. kon bëggatuma laa gis ngay taxaw ak kenn c'est clair. sama sago de c'est nga demee si jàmm à ngay ñëwaatee si jàmm fekk ñu si jàmm doo fekk lenn loo xamante daf lay mais na ndokk ba nga xamee sama awa Cheikh la. allo. allo Sadikh def. waaw. man damaa bëggoon daw dem supermarché di nduggi xam nga yaay man la dénk ganale bi. ganale wala waajtaay. ah waaw loolu du benn d'accord mais nag ñoo ngi may door a dénk responsabilité bu toll nii. en tout cas li ma la mën a wax mooy góor gi wootewul puukare wootewul xew. Nabou moo doon def lépp faa ma wane man mën naa. loolu laay wax. dem màkka siyaar yonent ba ñëw di fekk lenn fi caaxaan góor gi dox li ma la wax na ko dégg te bul ma ñaan benn dërëm nag di ma wax waxi puukare waa dégg naa la non xaalis bi garaawul baax na man am naa lu ma tey به yow lan la ma ray la ba arrêté te waxoo xanaa doone ma kaawu Omar bee nekk sa xel bi billaahi dama xamul góor gi bu ñëwee nan laa ko war a xoolee bii yow lan nga ci Omar am ndey am baay ñu mënuñ ci dara yow nga ne yaa ci mën dara Omar am na ndey am na baay mais bàyyi man la ko bàyyile yàgg na bi mu juddoo ba léegi lépp lu war si moom maa koy def góorgóorlu si ba heure bi yaakaaroon ni dinaa sem lu baax mu mujjee fii day mel ni man maa échec sama rôle. bi yow li nga mënul yëpp def nga ko xar nga ci sa tànk tubéy ba fii waaye Omar Omar la gis nga kër Baabel fii su amee kenn ko fiy sol daal njugo mu jot ko yow mii la du keneen. du sax xalil te seetlu naa bi xalil ñëwee ba léegi be sa fit bi toogatul nekkatoo ci jàmm sa humeur dafa changé te xalil yow doo romam ci benn côté bee jàmbarte gi ne ci yow ak safara gi ne ci yow nekkul ci moom te nekkul ci keneen kër baabel bé gis ko loolu du débat loolu du problème bi de loolu du dara xam nga wax bi lan la demee ganale nga bee damaa war a defaru sañse wane sama bopp joojo nga baal ma rek te yaa ngi dégg léegi ma naan góor gi bëggul ay pukkare waa bee bul insister aw sax benn yoon laa ko wax mu dégg ma fan nga jëm mais kaay nga eggali raay bi. wol sa maamu raay la. waaw wuy ma kaay ñu dem doxantu ma jëndal la galaas. réew moom. yow laay waxal. bëri tam. Nabou prima douche. zauna ba set yow da ngaa mujjee sañse sax ah. sa short lan la i tey di naaj laa laal bu dee sama mbokk pël ci Guinée yi lii yi la ñuy jour tabaski de eh. naan la doon ala Tupac teg ci nag naan la yee <laughs> ala parfum bi waa yow yaatal ay parfum hmm. yow Omar bu ne weng bi mu def ci kër gi ëmbal def fi lu fi kenn mës def ci kër juga ci am ah yow xalaatoo loolu loolu nekkul sa bopp bi man fi mu ne looloo tur loo moom mu jàpp sama bopp bi jaxase ko ah yow loolu defu la problème nga may waxi hmm. parfum ma ne bopp maam Omar laa wax ah dégg nga ma parce euh, que dégg ma fi euh, turu turu njuga caam yaa nga fay dégg bopp maam Omar nga wax de waaye yaam laay wax ah, wax nga dëgg ah. man maa ñaaw ndey daal fa nga bàyyi wax nga dëgg dama li nga wax man waxuma ko génn parfum bi laa wax nga génn bi. waaye man gis parfum nag kii bàyyi ma ma yem na bu dee génn parfum bi nga naan man maa tali man maa wax génn parfum bi. xoolal xam nga lu ma bëgg nag Bakir Thiam na nga bëgg jàmm man gisuma parfum dégg nga. na bu dee xoolal instant bi ni sama yaram baa ngi vivre nootuma koo téye génneel parfum bi. waaye wax nga dëgg sa yaram baa ngi vivre nii ni muy vivre nii nag. waaw xoolal maa ngi mel ni gaynde sii bi. gaynde sii bi. nga ni. ñëw. ah mbete muus. nii. nabu gaynde bu yëgee koom noonu lay def gaynde bu yëgee koom dëgg. nii lay def. ñëw. génne parfum bi nag nabu génne parfum bi. càmm nag da ngaa ci kurbuñ. nabu génne parfum nga ma ci xoolal génne parfum bi nag dama nabu génne ma génne parfum bi génne parfum ko génne. jërëjëf eh, taxawa waa xaaral. may ma moom laa jël. nabu wax Nabou eh Nabou jëlee barfa bi Nabou yéen a jëlee barfa bi Nabou Nabou génnal fii. waaw soxna si. allo sëñ bi waa. lan la lu xew heure bi. ay waay sëñ bi parfum bi parfum lu mu doon. parfum wu lan la. Bakir Thiam ak may rey mi may bëgg a rey ndax parfum bi. loolu nga bëggoon waaw xam naa ni waxoon nga ma ko waaye foogeewu ma ko woon nii sëñ bi xoola booy mi ngi dajji buntu bi Bakir Thiam dof na.

yi saa bu keur gi tangé rek ñu daw ci fi keur gi de tay dafa jaxasoo kaw Layla paré wuñ ci Omar ñëw duggal ku moom. ouais c'est chaud parce qu'en vrai euh, je m'inquiète pour Layla ndax dafa bëgg Babs te fowul man sa dix la yërëm Layla. lu baale. allo mais yow fan nga nek ma ngi lay woo ba tey mënuma la jot ah, bien sûr que dama lay fay lan mooy loolu ok maa ngi lay yónnee adresse dina ko coûter cher samay 18 lay sa di xamul sax kum ko sekkal. voilà merci monsieur. man chaque jour lii lay wax ak yow hein ah, genn doxatu dafa bax suraze fatte ya xamanteni yep mo ngi yon sa bobbi comprendre yoy jall na fatte ko ah. nga foog ne li nga def yoon la. daf ma recc ñaata yoon dootul am. wa ki du sadiq waaw man la kay. sadiq ki yow la xamé wom non non yow la kan. ah mënon nga ma xamé nak <laughs> waye tank ci souf jant ci souf yag yag dajje te pourtant de lu nekk defal naa la kon daal yow sa accessoire nga ma defoon rek saa boo soxlaa massage kat me nga woo ma ndeysaan te daal na neex nag neex boo xam ne lu nekk di nga ma lu nekk defal nga ma ko ay sama di tax di tax ay jus naturel ah Sadix nag war nga maa xàmme de. yow soxna si eh, sa raxas mi ngi fi xinab de. eh fayam. Ah. gis nga yow boo ñàkkee fayda ba sa jëkkër nekk ci mbedd bi di tambaambaalu. eh damay dëgg sa man xeexuma de soxna si way ma laa la wax eh defal ndànk yow sadix yow kii yebuma yow mi yaama yow xar bi yow eh defal ndànk yow lan la lay def nii yow sadix yow man ngay yeblu nii si digg dëkk bi xam nga lan laa bëgg xam kii yéen ñaar avant wala après sama mariage ak yow la joojo dalal ay sadix lan laa def joojo moom déglu ma déglu ma man la Ababacar Sadix Thiam damaa xamewul lan la da nga maa xam si ñàkk fayda wala da nga maa mos a gis may dox si yooyu joojo yow yaa tax ma teggi sama waxu mbokk yëpp la amul ma sa faire noppi bay ma yow crèche bi fan ça avance oui d'ailleurs on a jot autorisation bi fin du mois inch'allah, ce su ko la rentrée prochaine rek dina baax ma dugg si. ah super mais bé fii Goudi, ni lay rafetee ñun fii war nañu di fi ñëw guddi ah. maaleykum Alaykoum maaleykum salaam. la lumière yi l'affaire, affaire ni muy kiiwee ba yaa ngi bé. oui foo oui wuy ma su jotee rek di nga non mais sérieusement je sais que discussion bi am nañ ko amati ko mais duma si tàyyi ndaxte ça nous concerne surtout man ak Quand xoolal léegi attitude bi nga am ci une minute sa xel bi tukki na fi ñëwaat ndax lan ngay xalaat affaire yooyu mais je suis là tu peux me parler tu peux te confier à moi man ak yow ben rek lañu jarul ngay beru di xalaat dem ay problème non je suis là parle-moi. mon cœur en fait il y a une pensée pour maintenir ça me ça me paralyse et je. et tu te demandes que ndax bis dina ñew man ak yow ñu am doom. t'as vu ni may lire ci sa pensée ak say xalaat ni mu ma leeree. Non, la ma ne bis dina ñëw man ak yow ñu am on s'aime et c'est le plus important. qu'est-ce que tu aimes chez moi dis-moi. Tu xam nga ko. je veux l'entendre je veux que tu me le dises. j'aime tout chez toi. tout. tes yeux. ndax ni may xolé danga may rassurer ni man may ben goor bi nek ci aduna bi j'adore ta voix ndax bi suis am daf may apaiser journée metti da nga sa yow na ma mais ndax ko putain ton corps j'ai une certitude que ce corps portera notre enfant un jour Inch'Allah.. Amine..! fi may jeexalee nak moy sa wang bi dina ma ray de li faut que wut ci pexe père..! Ah. na don pexe bu lay arrangé parce que mo lay teree lo guddi. <laughs> Baby, je t'ai trouvé un rendez-vous au ministère pour son crèche Mon Dieu, merci chérie. Et je suis tellement contente, merci beaucoup. Votre série revient après la pub. di daal moo bari doole kadi saf sell te wóor nii la mel ah, ah, ah, tàng na tàng tàng na yaa nii neex na ah sama jéeg bi leen seen xol ak punch seetaanaale seen série Babel keto bi boole conseil national de développement de la nutrition ñoo leen di ñaax ngir ngeen dooleel xale yu am juróom Bigan Chignon. ba ak ñett ak bi gën ci ñoom.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 Passionné d'art et d'artisanat, découvrez les meilleures œuvres de nos créateurs locaux disponibles sur www.awalibis.com et faites-vous livrer partout dans le monde. Pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net. Global Textile Asenfal, Parcel Asini, unité 12 es tout Sénélec ba day gros à demi gros. matidi.com. organisation lépp moo waaw kumba awa cheikh defar nga defar nga awa cheikh defar nga defar nga nga nu njuga e caam gi defar nga jambar nga awa cheikh jambar nga waaw kumba awa cheikh njuga caam kontaan na ndax lii dafa rafet. lii lan la. dara Marème ça va de. lan moo tax boo doo ma wax si dara ma laaj la nga ma dara la kañ nii nga mel ni danga ko mos a lan moo la nakkare. bilaay du dara. man na xamul ba metti ci yow damay samag ni bokk lii laa lan moo tax boo amee problème dem ci Fatou Bintou. di ko wax tamay sa mag ñu bok nga war maa wax sa problème ma taxaw ci ba dindi lepp bam set conseil la wax la ma xalaat manam ni nga wax deug la man xamna ne bo soñon duma am dara luma ma waye dafa fekk ne fa mom la tolol jamono te suma ko xé sama problème duma gëdd duma ma et elle est tout temps à l'écoute loolu lek la waye du dara ko yow non nga ko gisee ta deug neexul rek amna deug yo xamne boko yo dang boo ko yor da koy gëdd fekk duma la yuxuma la Babacar laa joteelati. maa sa digganteeg Sadiq. sama sa Sadiq loolu weesu na foofu histoire bi weesu na foofu Marème Babacar war naa wax toog ak li ñu dund yëpp mu ne man naa ko may temps mu réfléchir. yow tam bu la waxee loolu daa jël ngay xuloo. ah man daal wax naa ko ne tey si ganale bi bu ñëwulee sama digganteeg moom fii la yem. ah loolu laa ko wax lii laa ko wax de. bu defee noonu nag lay laa dellu si sa xel gis nga sa sëy ki nga bëgg neex na lool lool lool. mais nga sëy ak kilo nopp dara dàq ko. waaw Marème nga yaakaar ne Bakar dina ñëw. gis nga Babacar bu dul moom di kaneen gis nga sëy ak kilo dafa neex waaye xool ki nga bëgg ni damay sëy ak moom mën na laa indi erreur erreur. Marème man dama nopp loolu kenn waxatu ko mais li ma wax laay delluwaat sëy ak bëgg neex na waaye sëy ak kilo nopp tamit pandu ga fo nga ne dina nangu mësa sa keneen kenen kuma bokul ak xeet hmm. en tout cas c'est ko bokul xet mom dalay tok ba sey set dok saña bañ hmm waaw te kilifa nak lay batam rek la am ci bir kërëm te juga batam rek la fi am nak ay maram ñaanal ma papa ga nangu xol yëpp seddati na ta amati na ndam fi tol sama xol baa ngi sedd mel wanagu mboot rax ci loolu na nga boole ci ndox mi nga xam seen mooy eau royale ci am di roi nak teg ci gis nga fi ni jamono ni mel so gisee nag mu ñu tok du leen lu remercier la ndax organisation bi ñepp gi naan jaar na yoon di remercier te xamul ni yaa si jàpp te xam naan bo jappul won du demee nii franchement merci yow tamit c'est normal yow yaay sama mag te ma la fété wo rak xam nga ni ko duma ma mos ngay laj c'est gentil en tout cas réussir nañ ko <laughs> en <laughs> parlant ça, là moi ce problème avec Nabou Ah Cheikh te nga maa wax xanaa tey gis nga li allié di jëriñ Nabou de dara soo bëggoon yegg sama digg bopp rek tok ci tane du wacc. mais cette fois-ci moom je ne suis pas laissé faire te en plus dafa bëggoon saboté bagou instant bi mais war naa ko noonu la naka la ñaaf ndax yàlla sax nga affirmé sa bopp tuuti waaye nag dina am lu ma la si yokkal Aïssa sa doom la te kenn du ko sàcc ci yow danga koy couver de trop foog nga bàyyi ko qu'il vole de ses propres ailes ndax il faut mu jëflanteeg àdduna. tu comprends. fa waaw Jojo. comment tu vas ça va. ça va alhamdulilah. bon maa ngi leen di bàyyi ngeen waxtaan ndax yow après dinañ àggal. yow la wut sama nekk jàmm ak salaam lan la mère Awa defal nànk loo may dàqee ni wala da ngay bañ ma gis sa néeg bi ay ñoom santal ay sëru naal li <laughs> famille boobu jooju mënuma dimbali nga même sama jam mère Awa yaa gën a xam yow su ma sa jàmm fii doo si jot mais fii li fi indi nag bariwul xam nga lan laa bëgg sa sagaru liggey bobu nga nek nga genn ci yow est-ce wer nga lan moy sa yon sama liggey ba ngay audace dox man ma bayiko ko mère awa yow bo manqué amour bay rabé sa bop si yenn liggey fekk ma fi man man doomu ci sama kanamu nawlay do xam nga sa bop li bu yàggee ñaan len di ro ñaan man ma ñaané la yow mère awa ah mer awa yow yaay kan ak lo am ba iñane wala sa sagaru alo wi bo motax ngay halluciné wuni <laughs> gis nga sama alo wi boobu ngay wax ci lay suturlu liggéey bi yaay ki ci genn wala ma dem ba ci sadik ne ko nga tayle say bisu nga der loy der gis nga xaritu léegi ni da lay andek yow li xamal diko wax ak yeneen awa sheikh jël sa téléphone nga woote gëma yalla Allô. non dit ça va la recherche.

waaw Ablaye maa ngi ñëw damaa ne ci yoon maa ngi ñëw maa ngi ñëw de. visiteurs yi sénégalais ñëpp ñoo waroon a booloo def benn coalition boo xamante ni def politique bu dëgër nga xamante ni or bi dootul jóge mukk Sabodala dina romb. yow li ngay kaas nii sunu maam yeeg sunu papa yi dañ koo kaas ba génn àdduna man dafa am te mënu ko comprendre quoi au fait muy xam-xam bi mi ngi fi Sabodala bii nii balaa ngay jot si affaire yi lu ne ngay daj. lu ne état bi gis ko min da ci dëgg tànkam wala da ci gëmm ay bëtam quoi. gis nga wàllu état moom bul si xuus ndax do musa am accès ci ñom sax ba leen di wax li nga bëgg parce que liggéey te do gis sa bop mo gëna a ci si gis ci adina non do comprendre walu or mo doon lo xamanteni eh ngeen waxtaan or na ba seen baye jóge maak xana ngeen wara nopi noppi te wax allah wala allahu akbar yeen ba jam mo leen dal yo an kurus ah eh, fa ne yow wirdu kon ci kurus rek la yam say baram sa mën nga ci wirdu di wala loolu xamoko won woon damay bañ nga jup xam nga ngay nax laay pen ah déet affaire Sadik yooyu bu ci dugg de hmm. waaye nag Khalil tey ah Awa Cheikh def na lu rafet. si macha allah hmm. vraiment ñoom ñoom moom ñoom ñëpp tey ñoo ko bokk. macha allah la famille di jariñ sax. exact ah waaw moom daal mi ngi góorgóorlu wax dëgg yàlla. <laughs> ah mais loolu la na moom ay nit bu ñu nekkee te dëkk waaw ah, dañu war a rafetal daal mooy lépp. salaamaaleykum. maaleykum eh, salaam. na ngeen def yéen a ngi si jàmm. cest pardon dama la soxla. ok pardon. yow nu nah, mu ya laay pen. xoolal affaire yaay may ma ñeexu ya à dire yooyu bu ci dugg de yow. man dama seen morom de. yow sama waay nga te ci kanam nga koy xam. mu ne la. baax na daal. yooyu daal man kafeewu mais au fait. kérok amna na femme bu fa rom di lañ dé man mi mbaar ma moom Ina lobé la Ina lobé Ina lobé yee. kii la Big Mama la xamna ko ci clientèle li la bok waaw lan lay ah dafa la lacc rek maniko xaw nga fee rar tuuti rek. ah waaw seenu tank la ma commandé won moy yoy xalé jigéen ñi xewal. man ngay waxal dé en tout cas laajte na la te jàllale naa la message bi. waaw dé man dama bëgg xam bu soo yow lan la maa jam <laughs> nijaay Mor yow lan la munoo ma may jàmm yow tàpp sax moo tane. awa Seex te nga bañ wax loolu xanaa liggéey fayeeku man sama xaalis laa lay si je comprends mais yéen mën def seen pigeon ku suqi rek jox moromam. te nga bañ wax loolu yow nga xam ne li waxante woon yow def naa ko. nijaay Mor lan nga def bag bi nga xam ne Omar sax am na ko yéen man daal yéen man maay seen nooy neex daal man maay yambar bi daal bu dëggate rek jox moromam. xam nga lan la li ñu waxante woon defoo ci dara ay moom bu dee da nga bëgg a jot sa xaalis nga lijjanti ma liggéey. yow Sadikh mën nga ni si ngànnale gi amoo bépp temps pour man. wuy ma li nga meroon moo tax te xam naa ni moom bu ma lay jegee nga may rey. deewa sax. wuy ma dalalal sa xel yow duma la dëkkaleeg doomu wax ma la ko waseex lan ngay mer. dama dul moroomam ci benn côté. wala c'est-à-dire aw seex li mu def tey ci ganale gi moo tax nga foog ni jàmbaar la du ci tus aw seex dafa jël ay takkaayam dem tay la ko rien que pour ay puukare defante wanew dégguma li nga wax nga ne lan aw seex dafa jël ay takkaayam dem tay la ko pour puukare yow yan takkaay nga tey nga tey de eh soxla ma benn explication dama bëgg nga tontu ma waaw wala déet yan takkaay nga tey de comprar. dama tolluwoon digante. sama ya dama soxla woon halis xale yi taxaw soxla woon ma dimbali leen c'est-à-dire nag may comprendre damaa ci eh dimbali mu waayoo nga naan ay comprendre yow ma yor sama njaboot di def li war si ñoom yow ma yor la contre la nga wan ba sa góorlu bi fees ga taxaw fi di fen naa ma ay xale ak sama yaay sa ndey bu soxlaa na dem sa baay que ça soit la dernière fois nga may wax yu mel noonu awa seex. xam nga lan laa bëgg nga wax ma nga dimbali ma si man yow démb nga walla nit nga wala lan nga wala maa dee ngay muuru di fen yow lii yàlla woo ko ku la gis faw la ko baax tan naa fekk bu bon mooy yow nga jël say takkaay tay la ko ngir puukareew sama bisu baay bi soxlaa wis benn puukaree ñaatoon naa la ko cow sóoraale woo ma moom yëgul say ma wàccee fekk la ci kër gee xalaatuloo ma ah, genn wàll bisimilah. Massi Thiono Alaaji moy del japp di julli rek di ma ñaanal. yene bi rafet na. papa ñu lay ñaanal bu baax nak te du sax ciow ñaan soxla nañ ko lool. ndax ka zalika papa man mom xam nga lo may ñaanal ndax turundo la la yene ah kok mom yene bu rafet la yal na ko borom bi nangu. papa jam, mané respecté wo ma jarul nga may ziar. ku joxu cër sa tante doo respecté sa baay. boo dalloo tuuti ma dénk la mbir balaa nga koy yëg feneen. ana lan moo xew. pas grand chose à part que tu vas devenir arrière grand-père. nga ni. lii yëpp Sadikh la xamoon na li Omar def yëpp mu dëgg ci tànkam ba noppi naan xale bu jigéen bi na yàq biir bi. laa ilaha illallah muhammad rasulullah ma ca màkka nee na doomu tëgg xajul ci yenn yi papa. yow xalaat bu ñaaw bi nan nga ko mën a amee. wala da nga fàtte ne da ngaa njaboote jigéen lii ko def Bousso dina la neex. góor gi maa ngi tuub di jégalu bu wér ci li am jéem naa ko éviter nag waaye daf maa bett te loola bett rek mën la. soo amee ay doom da leen war a cadré leen ci yoonu siraatal mustaqim soo ko defee doo am regret. musta ci giir gi dugg na fi de te lépp nag manque sa responsabilité moo tax. xam nga ma gën a métti nag mu bàyyi ba nga dem mu koy def. yaa imam maa ngi jéglu bu baax ci turu njaboot gi ma jiite ci tooñ gi ñu tooñ sa doom ma lay xamal lépp lu ci war nañ ci taxaw. li am nii neexul kenn metti na lool turam moo ñëw mais jëmmam ñëw. yow mom bu yeboo na nga xamni suba di nga ànd ak sa papa sa deex dem barma waaw man nga bëgg tek gatché am bëgg démb ñu orienté mu mbaar mu suba sama football ci ASC bi na laa koy def tamit. waaw ñaareel ma nag fi ak déwén bëgg na dem dama tam yal na ko borom bi tal ndax gis nga bërëb bo képp ku naan ashhadu an la ilaha illallah sa xel nga ca yal na ko borom bi tal nak deginasaykaɗo wayanak ki askan wuyga naratugo te yow tamit ça va aller. bu déggul li ma la wax ma saa fi wax rek laa mën te wax naa yow dégg nga ma bu baax li ma la wax. sànq baterai yang yaa ngi stressé nar fee amee tension nii pour lan t'inquiète. na ngaa tiit nii mbëggeel na nag. mbëggeel dafa diis. t'inquiète. yow Omar jom Omar yaa jom dëgg dëgg ya ñàkk jom Omar yaa ma bett yow defoon naa ne sa bopp bii nga ci def ak bal Omar yow xalaatoo sa football bii nga réussir pour ji. man dama ah? ko kii man de mosuma xalaat ne xale bi ah. ci bon ji mu ci xelam man de pour man Omar daggam wéeragut sax lu mës ta am ci kër Ndiouga ndax la def guléet ah salaamaaleykum salaam baaka baal laa lay tegal de baaka baa ni nga def waaye xoolal li ngay def ni kenn du ko def. oui ma inshallah rabbi sabri prochain tu seras ma femme. xew. eh way na Samba. eh sama tukulóor bi. sérieux. bien sûr. mo efficace kenn do yow ci mim réew. ci mo grave mais l'international. bal de match la ko jox. so sunu xew bi nak bu ñu wajjal ko ñew team tala nan ko. bul dóor bul portugais la ñu la indil. <laughs> yow la wax baax ñëw na rek macha allah. hii takk nañ waay. souris ma chérie. Ah. alxayri moo ñëw de. waaw waaw dañuy xew de. <laughs> Eh, eh, eh, naw jaam yow Tu nga doon jooy te ñëw na looy jooyati. lan ngay ko yéene jaam. yàgg na fi.